باسم الإله aw kasalin aw suraatin aw sayqi lisaani aw wuquufin bi xayri waqfin aw idxaamin bi xayri mudxamin aw idhaarin bi xayri bayaan aw maddin aw tashdidin aw hamsatin aw jasmin aw i'rabin bi xayri makan waktubhu minna ala tamaami wal kamaali wal muhaddabi min kulli al alhan faghfir lana ya rabbana ya sayyidana la tu'akhizna ya mawlana warsuqna fadla man qara'ahu mu'addiyan haqqahu ma'a al a'da'i wal qalbi wal lisan wahab lana bihi al khayra was sa'adata wal bisharata wal aman wa la takhtim lana bish-sharri wash-shaqawati wad-dalalati wat-tughyan ونبهنا قبل المنايا عن نوم الخفرة والكسلان منا من عصاب الخبر ومن سؤال منكر ونكير ومنكر الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان istajib duaana bi xaqi tawraat wal injil wa sabuur wal furxaan atina jamia ma saalnaaka bihi fi sirri wal ilaan wa sidna min fadlika alwaasi bi juudika wa karimika ya rahimu ya rahmaan allahuma salli ala sayidina muhammadin saahibi shariati wal burhaan bi rahmatika ya arhamar rahimin allahuma anfana warfana bilquran alazim wa barik lana bil ayat wa dikri alhakim taqabbal minna innaka anta samiu alalim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 wa ala siraati nuuran wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna annaasi sitran wa hijaaban wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaaman bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akrama al akramin allahuma ahdina bi hidaayati alquran wa aafina bi inaayati alquran wa najjina min anniiraan bi karaamati alquran wa adxilna aljannata bi shafaati alquran warfa darajaatina bi fadilati alquran wa kaffir anna sayyiaatina bi tilaawati alquran yaa dal fadli wal ihsaan allahuma arsuqna bi kulli xarfin min alqurani xalawa wa bi kulli kalimatin karaama wa bi kulli ayatin saada wa bi kulli suratin salaama wa bi kulli jusin jasaa allahuma arsuqna bi alifi wulfa wa bil baai baraka wa bi taai tawbatan wa bi thaai thawaaban wa bil jiimi jamaalan wa bil haai xikmatan wa bil xaai xillaanan wa bi daali dunuwan wa bi daali zakaan wa bi raai rahmatan wa bi saayi zulfatan wa bi siini sanaan wa bi shiini shifaan wa bi saadi sidqan wa bi daadi diyaan wa bi taai tahaaratan wa bi zaai zafaran wa bil ayni ilman wa bil xayni xinaan wa bil faa'i falaahan wa bil qaafi qurbatan wa bil kaafi kifaayatan wa bil laami lutfan wa bil miimi mawxisatan wa bin nuuni nuuran wa bil waawi wuslatan wa bil haa'i hidaayatan wa bi laamil alifi liqaan wa bilyaa'i yusran wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirin ajmain allahuma ballig sawaaba ma xaranaahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuhi sayyidina muhammadin alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam wa ila arwaahi ashaabihi radiyallahu anhum ajmain wa ila arwaahi jamii al ambiya wal awliya wal mursalin wa ila arwaahi abaa'ina wa ummahaatina wa ixwaanina wa asdiqaa'ina wa asaatidatina wa mashaayixina xaasatan wa ila arwaahi jamii al mu'minin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 laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alayha maktasabat rabbana la tuaxisna in nasina waqtaana rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxamilna ma la taqata lana bihi wafu anna waxfir lana warxamna anta mawlaana fanzurna ala alqawmi alkaafiriin sadaqa allahu alazim jataay bii li ko waral mooy bis la boo xamante ni jàmbaari lislaam taalibu Sëriñ Tuuba di njaal beenu ki jëkka uuf njabootu Sëriñ Muhammad Dem suñu maam suñu yaakaar teeg ëllëg di Cheikh Abdourahim Dem almarhum ak mboolem njabootu Sëriñ ma Dem gi moom lañu doon jagleel tey bisub ñaanam tolloog fukki fan ak ñett ci weeru baraxlu wi bi liggéey bi tolloo fii nag dajale woon ci njaboot gi kenn ci koo xamante ni ci jàmbaari kër gi muy njabootuk sëñ mat dem doon jàmbaar lool ci kër gi ci taxawaayam ak ci léppam di ko ñu xàmmee ci lépp muy sunu baay di sunu xarit di sunu sëriñ sëriñ Mbàkke Mouhamad Dem lañ koy wax kon moo am ay kàddu yoo xamante ni moom la bëgg a joxe ci jataay bii nu bokk ñu waaw noo ngi koy ñaan mu sànn ci ay kaddu ci bis bi ak li aju ci bis bi ak jëmmi ki ñu koy defal ak li aju ci moom kon ñu bokk teewlu ànd akuk dal akuk teewlu incha allah bismillah ay mbàkki bismillah salaam auzuha bika wa zurriyataha min ashaytani rajim rabbi auzu bika min hamasati shayatini wa auzu wa audu bika min charri ma sanaatu abuu laka bi nicmatika alaya wa abuu bi dambi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru dunuba illa ant allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin salaatan tunajjina biha min jamici alahwaali wal afaat wa taqdi lana biha jamic alxaajaati wa tutahiruna biha min jamici alsayiaati wa tarfacuna biha cindaka acla aldarajaati wa tuballighuna biha aqsa algaayaati min jamii alxayraati fi lxayaati wa baad almamaati asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di siyaare euh, mboolem ku nu fi dajeel ku xam ak ku nu xamut di ñaanit ci yàlla li nu fi dajale sunu boroom nangul nu ko dañu fay daje ngir ñaanal mag ñi dañu fay daje ngir ñaanal mag ñi te ñaanal mag ñi dana jur barke ci ndaw ñi te lu waaye am barke ku gën sëriñ Abdourahim mm, bis ni ki tey la fi jóge woon dellu ca boroomam ñu daja fi di ko di fàttaliku jëmmam di fàttaliku taxawaayam di dundalaale mbokk gi muy nag eh, eh, jataay yi day jataay bu bari ay njariñ day jataay bu bari ay njariñ ndax kenn umpalewut li nekk ci dundal ak mbokk ndax jànkat yi nee nañ ba suñ borom bindee ak mbokk ne ko wàccal da ko ne dama ragal bu mu wàccee ñu ñu dagg ma te noonu mu ko waxee ba léegi am na ñu koy def waaye suñu borom dafa dalal xelam ne ko xanaa du la bëggal ci boo wàccee ku la dagg danaa ko dagg mu doog a am dalu xelu wàcc lii ñuy def nag kon ci dundal ak mbokk la kon lu suñ borom ne ku ko def ma def la ma def la nangam ku def safaan war ngaa séentu safaanub loola kon gannaaw ku dagguk mbokk yàlla dagg la ku dundal ak mbokk war ngaa séentu yoolub ku dundal mbokk muy benn ci njariñ yi bis bu mel ni am euh, ñaareel ba it <coughs> euh, birrul ni muy topp ay wayjur topp ay wayjur feek ñu ngi bëgg lu dëppoog li yàllay bëgg te wayjur di ku yàlla fonk li ma koy faral di waxee yi yàlla santaane yépp la ca gën a jiitu mooy ñu jaamu ko waaye fu mu santaanee ñu jaamu ko dana ci teg ki yàlla jaarale sak am ci ñoom nga daw ci ay bànneexam feeg mi ngi bëggul lu dëppoo ak li yàlla bëgg e, ba ñu laajee yonente bi salawaatullahi wasalaamu alayhi lan mooy dundal ak mbokk lan mooy e, e, dab bànneexu waajur maanaam birul waalideen bañ ko ko laajee dafa limoon ñetti mbir ba ñeent dafa waxoon ne birul waal deni mooy feek yaa ngi nekk ñoom ci àdduna ngay dab seen bànneex feek ñi ngi bëgg lu dëppoo ak li yàllay bëgg di bañ lu dëppoo ak li yàllay bañ nga xam ne kon waajur wu mel ne neen booliwuñ ko ci ki ñu war a birru mu tekke ne boo leen gisatut nga fayal leen seeni bor ba ñaar te di leen ñaanal saa su soxel demee ci ñoom ñett ñeenteel bi muy ngay nemmeeku seeni nit maanaam ña nekkoon seen xarit ña nekkoon seen i wëllëre ña nekkoon seen i am di jàmm nga leen di nemmeeku comme ñeent yooyu mooy birul waalidayni di def bànneexam feek mi ngi dund bu fa jógee tut nga fayal koy borom di ko ñaanal bu saxel demee ci moom waaye di nemmeeku aw nitam kon lii bu fekkoon dafa yem rekk ci fàttaliku ku fi nekkoon te nekk woon fa lu baax di mbokkum ñëpp dana jar jóge fu sori toggoo coono yu bari ñëw ngir loolu ñëw ngir loolu e, ñaareel ba e, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu am na ku ko laajoon laaj yu am solo am na ko ko laajoon ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am doom ju góor joo ne ju ma demee bàyyi ko ci sama gannaaw ndax bu kooku amutoon doom nga bëgg ma bëgg nga ñaanal ma sama wërsëg yokk ma bëgg nga ñaanal ma su ma faatoo ma gudd fan ma bëgg nga ñaanal ma suma faatoo dem àjjana ñeent yooyu defe naa ku ne bëgg na ko waaye déglul bu baax yi ko sëñ Tuubaa tontu nga xam ne tontu bu ci nekk tontu bu ci nekk tontu bu ci nekk boo ko xoolee danga xam ne sëñ Tuubaa xam-xam la xam lay waxe waaye xel lay xel lay waxal li mu wax lépp xel da ko mën a nangu ak ku mënoon a doon ba mu euh, wax naa ne ñeent la ko kooko laajoon ba ko laajee doom ju góor da ko ne doom day yàllaa koy joxe waaye am na doom ju baax yàlla moo ko jox waaye am na yoon woon koy jaar mu ne ko dangay wut alal ju lew xoolal li ci alal ju lew mu ne ko nga dem ci kër gu am yarub diine xoolal li ci yarub diine mu ne ko nga dem joxe ko fa ñu may la soxna néew ma da am doom ju góor ndax doom yàllaa koy joxe waaye sëy boobu doom ju jut dana barkeel muy góor muy jigéen xam nga tontu loolu xel ma na ko nag alal ju lew kër gu am yarub diine dafa mel ni tool bu set ba noppi ñu ñu def fa engrais ba noppi wut jiw bu baax ji ko ca bu tawee insha allahu dana sax euh, ba mu ko ne ci luy dolli wërsëg da ko ne wërsëg day ci biirub yaayu nit ki la ko sunu boroom di dayale te loolu boo demee ci xadisul xilqa xadisul xilqa ma ngay firi laaya boobu ci suuratul xaj ji di wax ñetti étape yi nit di am ci biiru yaayam moo tax xadis bu ñu tuddee ko xadisul xilqa xadis bi nettali nii yàlla lay bind doomu aadama ci biir nit lam fa wax lépp rek la ko sëñ Tuubaa tontu da ko wax ne ko wërsëg boo bëggee mu yokk da ngay dimbale ñi nga tane boo bëggee wërsëg yokk da ngay dimbale ñii nga ñi ñi la tane mu tekke ne ko fukki yàlla na yokk yu bokkut fu ñu xëyee du ñàkk bu ci yàlla nangu maanaam nga nga dajeeg fukki nit ku ci ne nga jox ko ñaari junni ku nekk ne la yàlla na yokk Sëñ Tuubaa neen fukki yàlla na yokk yu bokkut du ñàkk benn bu ci yàlla nangu li ma la ne la moom tontoom xel da koy mën a nangu xam nga fi mu wax ne fi la ñu amee doom ju góor ku ko def ku jaar ku ko jaaree fii yàlla mën na laa jox doom ju baax ni mu wax moo moom mooy yokk wërsëgi boo seetoon mbooleem ay wax ci al infaq fi sabilillahi noonu rek la ca wax infaq yàlla dong mooy ki ngay lebal benn mu fay la fukk fukk mu fay la téeméer téeméer mu fay la junni loolu yàlla dong koy def te loolu mooy ni li Sëñ Tuubaa ko ba mu ko waxee nag eh, li tax ma indi wax ji. ba mu ko waxee ne ko gudd fan da ko ne gudd aw fan it day dafa mel ni wërsëg yàlla da koy dayal ci biiru nit ki bala mooy judd hmm? waaye e, e, ñaanal ñi la jiitu barsàq dana yokk wërsëg mu wax ko yit naka lay yokke wërsëg mu ne ko ña nekk barsàq dañoo mel ni ñoo xam ne dem nañ ca tool ya ba wàcc yóbbu nañ fa ab dund lañ fa lañ fa yóbbu mën naa doy man naa bañ a doy waaye keneen nekk na ca tool yi di liggéey di leen yónnee xam nga ki ngay yónnee bu fekkee yoroon na doy xelam day gën a dal ndax da koy yokk ci lam yoroon mu doy waaye bu fekkee lam yoroon doyut nag ah mu ne ko ñaan yi ñuy ñaanal ñi nekk barsax daa mel ni ay mandat ku ne xam na ne loolu sama sama mbokki sëriñ yi xam nañ ko ku nekk ci réew mi léeg-léeg mu yónnee la ne la nga jëli ko ñaar wala ñeen fukk wala juróom fukk a ah, bu loo ko waxee ak bu la ko waxut boo wéetee booy ñaan danga ko ca boole gis nga mandat yooyu ni mu amele solo ki ne ci àdduna nu ko raw la lixlaas yi amele solo ki ñu ne barsàq kon ku bëgg a gudd fan del ñaanal ñi la jiitu barsàq bokk na ci yii tax nga gudd fan kon jëlal naa la dundal mbokk gi waaye pour saw fan gudd sax jar jar na daje def lu mel nii waaye déglu leen mbokk yi e, dem àjjana la mu ko ca tontu da ko wax ne ko ah ba mu ko waxee lay tax gudd fan lay tax a yokk wërsëg lay maye doom ju baax da ko ne gudd fan nag ah kii dem àjjana mu ne ko ah àjjana nag kër la gu am boroom boo bëggee dugg fa yomb la fexeel ba juboo ak boroom bala nga faa dem am boroom boo bëggee dugg fa yomb fexeel ba juboo ak boroom bala faa dem. gis nga sëriñ bu la di àjjana dalay nax ndax sëñ daawu ko dige sëñ tubaa nee na àjjana kër la gu am boroom ku bëgg dugg fa yombal la da ngay fexe ba juboo ak boroom bala nga faa dem yàlla nag nii jubóog moom ku ne xam na ko mooy nanga koo jaamu rek te wéetal ko ci jaamu bi bañ ko bokkaaleeg dara walla lenn loolu mooy tax am ngërëmul yàlla kon lii ñu dajale fii tey man nañ fay jëlee kon fan wu gudd fan wu gudd nag dafa mel ni lu juyaloo ak li alxuraan wax ne ci biiru ndey ci biiru jigéen ji lañuy dayale dajale wërsëgu nit ki aku fanam ak mbiram yépp waaye mbokk yi loolu yomb dégg la gis nga at moo xam ni tëddoo ci dara dalu ci nga amagu ak wér ba noppi di wuti di am moo gën fukki at yoo xam da tëdd. ki nga xam ne yàlla da ko war a ay natt ay feebar ay ñàkk bu dee def yu baax yooyu yàlla da koy jiñal musiba yooyu ak balaa yooyu bu ko defee sibbiru sa ko waroon dal wala soj ma wala tànk bu damm ba yàlla wecceel ko ko lu ñàkk solo loo xam du ko yëgal yaramam gis nga fakkastalu sax sa sa sa waraw daal dagg dana wecci tànk bu damm dana wecc accident boo xam ne bakkan waroon na caa mën a rot loolu yàllaa xam nu mu koy defee yàllaa xam nu muy doxale loolu gannaaw nit mën naa dogal dara atte kenn ba ne dañ koy tëj may nañ kenn sañ-sañ boo xam ne mën na koo baal mu génn kon sunu borom war naa mën a bind dara ba noppi génn ca bu ko neexee loolu du dara ci yàlla te noonu yi lay ame e, mën nag mooy sant bu baax sant yàlla bu baax doole ci li ko santoon ndax kër gii ñu nekk tey man fi laa ganee àdduna fi laa juddoo eh, lu ma sore sore waroon naa léeg-léeg ma jaar fi siyaare ko barkeelu fi sëriñ bii ñu tax a daje it doon koo xam ne séqoon naa moom loo xam ne la ci ëpp mënuma ko wax la ci ëpp mënuma ko wax loolu ñépp xam nañ li ma ci mën a wax rek mooy li ci ñëpp xam te muy lu ñu sañ wax euh, te li li li fàttaliku ku génn àdduna yi jariñ mooy nga roy ci jikkoom sëriñ Abdourahim dëgg la amoon na xaas amoon na xaas xaas mooy loo xam ne liggéeyoo ko loolu mooy xaas ndax sëñ tubaa joxe aw turam sëñ tubaa moom ba mu ganee àdduna ca sëñ tubaa lañ yónnee mu jël aw kayit bind ci abdourahim kon sëñ tubaa ko tudd tur woowu li muy baax baax ku ko mënoon a joxe dana am njariñ waaye rawatina bu génnee ci làmmiñ wu toll ni làmmiñ ku toll ni sëñ tubaa kon loolu xaas la maanaam liggéeyu ko yàllaa ko ko jagleel mën naa amit beneen xaas bu mu jëlee ci waajuram ci baayam waaye amoon na jikko yoo xam ne jariñoon na ko lool ci jamono te képp ku ko ci roy da nga ci jariñu danaa ci wax ñett ba ñeent ñetti jikko ba ñeent ba ma cee njëkk lim mooy te yàlla mi may yàlla mi nga xam ne moo gën a xam moo ñu gën a jege suñ buumi xol xam na ni lii may wax dëgg la teyit lu ma gëm la teyit képp ku képp ku ci am looy sikki sàkk ci bakkan nga ko teg waaye dara munu cee àndu ndax dëggu yàlla la sëñ Abdou Rahim bokk na ci jikko yu ñu war a royee ci moom moom ku fonkoon cosaanam la ku fonkoon cosaanam la daara ji donn doon gëmoon na ko gëmin woo xam ne dara mës a nangu mu yàqal ko ko loolu nag lu mat a roy la loolu laa ne lu mat a roy la man ñoo bokk bàyyi muy sama mag waaye am na ay doom yu ma mag waaye tiwut bi ñuy jaxasoo da doon jaxasoo man ci jaxasoob nawle loolu jikko ju baax la jikko ju baax a ngi noonu dangay gis ku ànd ak nit bari na suñ mbokk yi taalibi murid yi ànd ak benn sëriñ sëriñ bi jóge fa ay doomam nga def leen comme daggiti daal loolu nag kuy wut yàlla du ko def ndax yàlla newul ci kenn yàlla fépp la ne yàlla ku ko xatal xamoo ko yàlla fépp la ne te kenn amul ci yàlla ciir boo jox sa bopp yàlla cër moo ko jox ku ko sopp kon moom warees na ko roy ci fonk cosaanam rawatina bu sa cosaan dee cosaan lu baax moom cosaan lu baax la amoon ci daara ji la juddoo fekk baayam ne ci daara ji nekk ci ba bàyyi ko ci mu jël daara ji di ci rey boppam mu yomb mu jafe def na ci lu man te man loolu xam naa ci dara xam naa ci dara xam naa ci lu bare bari sax ku ne xam na nag mbirum daara moom yombut waaye mbokk yi nañ gën a jàppaat ci daara ji man mënuma wax lu ma gën a ñore noonu mënumaa wax lu ma gën a ñore noonu ndax daara yu bari mu ngi bëgg a gent ndax mbiri jamono te samp bu yàlla wërt gent daara wërt a gent ku ne war na cee def ku ne war na cee def maanaam sa doole ak sa ñax ak say xalaat ba daara yi bañ a gent fii nag moom du gent moom incha allah ndax ñi yàlla ñi yàlla dogal ñu bokk ci ñëpp ku ci nekk fa nga ne yaa ngay jéem la nga man waaye sëñ Abdourahim ku mat a roy la ci fonk cosaan lu baax ndax euh, <clears throat> cosaan bu fekkente ne baaxut nit ki da ko war a bàyyi seet lu baax waaye bu baaxee da caa war a ngoy muy benn fonk cosaan euh, ñaareel bi muy tabe sëñ Abdourahim ku tabe la woon ndax da daan jox ba jeexal loolu Abdourahim mii nekkoon ak moom doomi sëñ Mor xam na ci dara daraan joxe ba jeexal takk yónni ko ci daam mii lepp ko di jox ñu toog joxe bay lepp nag lool tabe la waaye lislaam santaani ko ko joxe ba jeexal man nga ne man man ngaa dige wala nga seet noo def ak ñoom wala nga def saa mbokk yi tëju ah waaye joxe ba jeexal di yónnee di leb di joxe loolu da ko daan def te lii may wax waxaluma ko kenn saa bopp laa ko waxal te lii may wax ñi ngi koy jël ci bànn bu ëpp bii bande bu dul yàqu danañ ma ko dégg salaat bu ëllëgee dara lu ma fen dara lu ma fen man dara jëralu ma it wax lu bëgg wax lu bëgg mu neex nit man bala maa wut lu neex nit dama koy wut ci biir li neex yàlla kon sëñ Abdourahim fonkoon na cosaan lool te cosaan lu baax daa jara fonk ñaareel ba ko tabe woon la da daan joxe ba jeexal di leb di joxe te loolu lu baax la am na fu yonente bi di wax naan alkaramu huwa taqwa alkaramu am na ñu ko firee tedd waaye tedd mooy tawee rek tedd moo ëmb jikko yu baax yëpp alkaramu huwa taqwa te taqwa mooy di moytu yàlla ci yim santaane ak yim tere wax naa ñaar wax naa ñaari jikko maa ngi ñëw ci bu ñetteel bi te muy jikko ju baax eh, sëñ sëñ Abdourahim ku bañoon ku ko meree la loolu xaw ma xañ na loolu am na fi sax ñoo xam duñ ko xam ku bañoon maanaam ku bëggoon jàmm la ci beneen waxit ku bëggoon jàmm la bëgg jàmm daana tax muy xëy ci dara yendu ca te dara yitteelu ko ca waaye bëgg rek nit ñi kontaan loolu it man xam naa ci dara bëggoon na jàmm lool feek mi ngi am jàmm jàmm ko gën a lu dul jàmm jàmm jaral na ko ñàkk alalam jàmm jaral na ko xott ci dara jàmm joxe jàmm jaral na ko lu ne te loolu mbokk yi lu baax la nit day bëgg jàmm lislaam yépp jàmm moo tax yàlla yàlla yàlla yàlla yónnee ñu ko te mbokk yi bu jàmm amul jaamu yàlla sa doo ko man bu jàmm amut jaamu yàlla sa doo ko man kon ku bëggoon jàmm la te yii ma la wax bu ci nekk mën naa la ci indil fukki xew-xew yoo xam ne fekke naa ko waaye du ko jar du ko jar moom ku fonkoon cosaanam la ku tabe woon la waaye ku bëggoon jàmm la te daa ci dox daa ci wax gis naa ko ba tàyyi ab xew-xew ndax man dama daan laaj man dama daan laaj dafa mujj sax dafa mujj sax ne ma sëñ bi de bu ma la séenee sama fit bi day jóg loolu wax ma tama ko wax ndax bu ma toogee ko moom lu ma jaaxal danaa ko ko laaj léeg-léeg sax damay ne ci barab yor sama këyit di bind ay question di ñëw di ko ko laaj léeg ma laaj ko dara moom loolu de xam naa danga may dang ma danga ma koy danga may muñal ba fekki fan waaye bëgg googu bëggoon jàmm bañ ku ko mere feeg mi ngi mën a feeg mi ngi mën a am loolu mata roy la ndax loo fi gis mu jag mbooloo moo gis ñu jag ñu ne ci jàmm dañoo bàyyente xel mbooloo dañoo war a bàyyente xel waaye je fu fous baaxut ku koy doxee rek doo déggoog say mbokk sa jamono du neex li ñuy wax it euh, euh, maanaam mm, mm, li ñuy wax maanaam anaani yu anaani ya maanaam koo xam ne boppam da nga koy teel loolu ba tey du xel ku bëgg jàmm du def noonu sa nit ku ne am na droit ci dàq intérêt waaye mbokk yi intérêt kenn dañ koy dàq ci intérêt mbooloo ah sama intérêt man danaa ko wut waaye ci biir intérêt mbooloo bi waaye su ma bëggee bari wut saa intérêt danaa sonn te du ma am dara ndax yàlla moo nu boole te moo ne aljamaatu rahma aljamaatu rahma mbooloo yërmaande la bi ma koy tëjee nag eh, te muy koy sang mooy sëñ Abdou ko mënoon a accueillir nit la ak accueillir nit maanaam li ñuy wax diplomatie eh sëñ Abdou daana toll ci jamono yoo xam ne day am lu ko diis lool mën naa jóge fu mën a doon waaye boo ñëwee ci moom doo ko xàmmee dalay lay ree di waxtaan ak yow ah, di wàcc ba tolloog yow te man loolu su ma ko waxee. war nañoo xam ne lu ma dund laay wax ndax nee naa ñoo bokk bàyyi waaye ay taawam ñoo ma mag te jaxasoo naa ak moom diirub juróomi at yoo xam ne bis bu set danaa ko gis bis bu set danaa ko gis maanaam nañ ànde woon man ak moom ak mbaaxam akuk lewetam akuk woyafam ak sàmm wor ma rekk a tax mu yomb bu dutoon loolu du yomb waaye loolu rekk tax mu yomb loolu nag lu mat a lu mat a roy la lu mat a roy la ndax euh, lislaam ñi ci maanaam ñun yi ne ci lislaam li nu bokk du luñ war a séddoo dañ ko war a bokk waa anamu nag ñi nga xam ne dañoo bokk te leneen du lislaam ñi bokk ci wàllug ndey wala bokk ci wàllug baay boole mbokk mbokkug lislaam nga eh lislaam bu bëggee sama sa moroom julli doo nga def ko doomu ndey rawatina ki nga bokkal ëttub baay wala ëttub ndey kon war ma lu mat a sàmm la te loolu maa ngi koy fàttali saabu di ko fàttali ñëpp di ko fàttali ñëpp macha allahu eh, man bis bi tey laa ko ren laa koy doog a yëg sëñ Malick moom moo wax ma ko ndax man sëñ Abdou jàpp naa ne moo ak sama baay ñooyam ci man ah bu ma koy ñaanal du ma ci xaar bis bis bu set laa koy ñaanal séq naa ak moom loo xam ne du ma ko wax kenn ndax yoonu kenn nekku ci. moo sama baay képp képp laa yemale ndax lu ñu seq ma nag moom te loola it mu dox ci lu bari nag mu dox ci lu bari loolu moo tax bañ ko daan ñaanal kenn daaw ma ci gis ndax daawuñu ma ko wax te jàpp naa ne mën naa koy def sama kër comme niñ koy defee fii ren nag ma sëñ Malick wooye wax ma ko du ma mën a ñàkk ñëw looloo ma indi loolu rek moo ma indi di bég nag ci xar kanam yi ma gis macha allah ndax. Euh, euh, ku nekk bëgg na di del di deltu gannaaw di xool sa bopp waaw ku nekk bëgg na di xool sa bopp léeg ci euh, ci bi te fii ku xool rek saa bopp laa ciy gis waaye danaa fàttali daal ñi ci toll ñi ci toll ñu gën a jàpp ci daara ji daara ji nag fii mooy reen mag bi waaye daara yi léegi bari na képp ku fi jógee rek fa nga ne ci fi ci ci daara ji la jóge benn bànqaas la ci jàpp ci daara ji mooy di ko dundal foo toll di ko dundal foo toll di jàng foo toll di jàngale foo toll boo nekkee ci leneen la nga ci amee ci wërsëg nga koy dugal ci daara ji loolu mooy jàppale daara ji loolu ñun ñëpp la war ñun ñëpp la war rawatine nag ku bokk fii ndax fii kat ku fi bokk euh, sëñ mat dem rahimahullahu lu jiitu muy ñëw ci sëñ Touba fu mu a nekk dañ koo ràññee ci xam-xam ak ñëwam ci sëñ Touba dafa ñëwoon di jébbalu si comme ñëpp ñëw na ci moom ñetti yoon delluwaat maanaam ñëw siyaara si delluwaat waaye bi mu ñëw ñëw gu mujj gi <coughs> ñu bari ciy mbokkam dañoo juyool ak moom ndax daanaka tas këram la def ña fa nekkoon ci waa kër ñëpp dañoo dañoo tasaaroo waajur sëñ Moussa Sokone dong ko ci toppoon te moom ba mu fi ñëwee ay ab diir bu gàtt la fi def daal dem Sokone Sokone la sëñ Moustapha ganee àdduna sëñ Moustapha moom ak sëñ Abdou ñaari at nee na ma 18 la Abdourahim di vingt sëñ Moustapha moom a ko wax sëñ Abdourahim maa ngi ko doon laaj ci atam ma ne ko dem ak sëñ Touba loo ci fàttaliku mu ne ma dem sëñ Touba day mi ñu fekk ci sa tooli baay yi nekkoon Gusaas ñu nekk fa ak booba ku ñu wax sëñ Mbàkke Fall ma nekkoon Madina moo nekk jëwriñu daara ja sëñ Abdou nee na ma dama jekk-jekk ma rek dégg ay yuux euh, ma ñëw fekk sëñ Mbàkke Fall mi nga xam ne moo mooy magi daara ji maanaam muy muy xalangu ci suuf ñu di ko jàpp ma dégg ñu naan ku baax ki dee fi bàyyi ko ku baax ki moo fi bàyyi ko nee na ci saa si ñu daal di dajale bagage yi di ñëw daal di ñëw njaareem ñëw fekk dëkk bi xumb lool nee na booba fekk na ko mu dal jàng ba toll fer ij boo seetee la sëñ Moustapha waxoon ne 18 la sëñ Abdou di 20 ak li wax ne fekk na ko mu mu toll dal jàng ba fer ij juróom-ñaari at yooyu kon day daal di am ñaari dëgër laay yoo xam ne dangay jàpp ne kon euh, euh, bi sëñ Tuubaa dem sëñ Abdou sept ans la am mu dëppoog la sëñ Moustapha ne woon dix bi laa sëñ Abdou du vingt parce que histoire bu ñuy wax bokkut ak bu ñuy bind histoire bu ñuy bind moom boo gisee mbind mën nga caa sukkandiku waaye bu ñuy nettil dangay ngay lëkkale ay nettali yu bari doo nga xam boo cay jël bu kay waxee kay wax kay wax boo leen dendalee da nga xam yi ci gën a dëgër nga jël boobu kon ñaari wax nga ko yoo xam ne bu ci nekk wane na sëñ duub bi sëñ Touba di dem juróom-ñaari at ci la tool waaye gis nga sëñ sëñ ma dem bi muy ñëw ci sëñ Touba booba ñeen fukkam weesu weesuwut ñeen fukki at sëñ ma dem bi mu ñëw ci sëñ Touba weesuwut ñeen fukki at waaye diir bu gàtt la fi nekk nekk ci kër kër gi dajanteeg sëñ Touba dem ba gis ne mënatula tëral toog di tëralal kenn mu waxtaan ci ak sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke soo ne ko mët dem mii day man na ko loolu ki ma ko nettali mooy sañ njaaña bu su doom yi sañ Mbàkke sëñ njaaña bu su euh, euh, euh, nekkoon xalifu sëñ Mbàkke bu su yoroon na barabu sëñ tubaab yi Mbàkke Bawol gii la dëkkoon moo ko nettali ne ma yéen di war ngeen a jàng ndax sa baay day xam-xamam bi nee na am naa ci ñaari firnde sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ mu ne ma sëñ bu so wax na sëñ Tubaa ne ko mët dem mën na ko fekk mu ne ko wutal ma ci fere yi ku ma mën a wuutu ci njàngalem xam-xam mi waaye sëñ Njaaña ne ma bett naa sëñ Mbàkke Buso benn bis sëñ Moodu sëñ Moodu mooy taawu sëñ Mbàkke Buso sëñ Buso ak sëñ Asan ñoom ñaar lañu wax ñoo doon sëñ Mbàkke Buso ci xam-xam donte ñoom ñëpp boroomi xam-xam lañ mais day am ku yàlla gën a ubbi sëñ Njaaña nee na ma bett naa sëñ Mbàkke Buso ak sëñ Moodu Buso ñuy jëw sa baay mu ne ma sëñ Mbàkke bu so ne ko mët dem day daanaka njuuma la xam-xam bi ko takk weesu na ko ki may nettali lii ma nga bar sax te dinaa ko fekk te man du ma koy wax ngir bëgg ñu gis ma loolu moom du sama mbir lu ma gëstu ba mu wóor ma laay wax ngir bëgg ñëpp jariñoo ci parce que lu waay wax da ko waxaat sëñ euh, euh, li ma li ma bëggoon a wax mooy sëñ ma dem bi mu ñëw ci sëñ Tuubaa ñeent fukki atam weesuwu ko waaye booba Euh, jamono yooye njàngum daara li ñuy jàng ci téere bëriwul ba léegi sax daara yi bariwul téere yu ñuy jàng waaye koo ci gis mu xam rek xamal ne daa bëgg xam xam moom ku bëgg xam rek a koy def booba téere yu néew la jàng jàng ko ba jeexal ko waaye yër na ba tàyyi téere boo xam ne mosu koo gis sëñ Abdou nee na ma El Hadj Amady mais nekk Sokone nga xam ne moom dafa dafa amoon ay xarit yoo xam ne ay soose lañ ay téere da koo yomboon ndax jamono jooju téere yi Gàmbi la ñuy duggee Sénégal booba colonialiste bi bépp téere diine bu fi dugg dañ koy xool bu bu wax ci yenn yi dañ koy interdire moo tax sëriñ su daan wuttee dañ dañuy jaaree Gàmbi su ñëpp nee alaaj amat Dem yónnee na fi ba taay téere boo xam ne da ci maanaam euh, bu ko yéree da ciy gis ay diggante mandargaal ko yón yónnee ko sa baay maanaam téere bu mu yër am ci diggante mu gis boo xam ne loolu nag euh, jamonoy léegi ji wax boo gisee wax wax jafe boo waxee mën nañoo defee da nga yëkkati sëñ moodu di wàcc sa alaji amat waaye déedéet xam-xam moo demee noonu loo bari bari xam-xam da yër dara bëgg caa am xalaatu beneen boroom xam-xam loolu la ñuy wax munazara boroom xam-xam bu yëree dara ba am ca lum xam day bëgg toog ak yeneen borom xam-xam wax leen ko ñu wax ko ci xalaat mu dollandi ko ko parce que menn xel ñetti xel a ko ëpp moo ko gën loolu moo tax mu ko daan def waaye moom xam-xam bi mu am dëgg la la waaye am yàlla la ko jox waaye jàng la bëggoon moom la gëmoon jàng la bëggoon moom la gëmoon ba ni mu màggatee nga xam ne bët yi sax tam la naqari fu mu gisee ngay rub téere mu laaj la ko xool ko loolu nag bëgg jàng weesu ko ah fu gisee ngay rub téere mu ne mu laaj la ko daal di koy lemmi xool ko. bu ko defee eh, ci lool yi danaa ci wax tuuti ci ci ñi nga ñi nga xam dañoo toll ci jàng sama mag yu ñu wax sëñ Afi Dem yàlla ko yàlla yërëm ci ñi njëkk a am ci kër gi rajo ci la bokk rajo ab rajo boo xam ne Dakar la dem ñu may ko ko mu indi ko rajo bu ndaw boo xam ne da koy antenne takk ko ci kii bi di ci déglu London ba ko sama bàyyi déggee da ko woolu ku moom rajo bi ñu ne ko sëñ Afi day ko ëndaale mu woo ko laaj ko ko mu jox ko ko mu denc ko ba ak góor ñëw fi mu may ko ne ko ñaar yi dañuy yàqum jàng rajo ak journal ñaar yi dañuy yàq am jàng rajo ak journal loolu maa ngi koy dénk ñu toll ci jàng ja xam-xam li koy may mooy bind ab bind nee nañ al ilmu min afwaahil ulama dem nañ ba gëm ne nit ki mën naa jàng ci ay kaset mën naa jàng ci internet waaye loolu ay caaxaan la al ilmu min afwahil ulama ku bëgg xam-xam da ngay gàddu sab dem ci ku xam mu tëralal la kon loolu maa ngi koy dénk sama maas gi toll ci jàng ndax man ca ñooñu laa bokk tey ñaan bu baax yàlla yàgg nu fee daje yàgg nu fee dajale fii waaw dem ba ñun ñi ñëpp suñuy sët di fi ñëw di ko def ñu leen fii fekk si di leen ci jàppale di di di di loo xam nag maa ngi koy waxal saa bopp mbooleem xar xar kanam yi ma fiy gis yëpp rek ku ci nekk rek kóllëre ga nga amoon ga nga amoon ak man démb tey laa ko gën a jàpp mag nag nit ñi nag day dem ba doon mag maa ngi koy wax léegi sëñ Malick nee naa ko léegi kër gi gone nekkatu fi ñëpp mag lañ te mag mbokkuk mag nañ koy doxe bokkut ak mbokkuk gone mbokku gone mën nañuy wootante attaaya mën nañuy wootante kafe mën nañuy waaye mbokku mag da ngay toog fa nga toog sa xel dem sa morom nga di ko ñaanal te bu xewu jàmm jotee nga jóg mag noonu la dox ak mbokk kon maa ngi jéggulu maa ngi jéggulu bu baax eh, wax ji doonte ñu may waxal xam naa ni war naa wax ak ñoom maa ngi ñaan yàlla nangu nangul nu te nangul leen di jéggulu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ko bokk déggandoo <coughs> lii xew-xew la boo xamante ni ci bisub suñu sang bii di suñu yaakaar yaakaari tey ëllëg sëñ Abdourahim Dem moom la doon def yii ci ay témoins ci ay jikkoom ak i nekkinam moom mii di wax nag comme ni mu ko waxee rek ñenn ñi fi toog ay doomam lañu ñu ñi fi ne ñëpp fi toll ak i taalibeem ñoo fi daje wax jii nga xamante ni wax na ko yit lu mën a xew ku nekk xam na ni dëgg gu taxaw la doon jëmm joo mën a làmb raj ko mboolem jikko joo xamante ne wax na ko sëñ Abdourahim Dem ci nekkam moom ak lu mu doon jëflante moom sëñ Abdourahim dem def na ko ci gone goo xamante ni maanaam mëtugut a wax ci kanam ñu bari fii li ciy firnde fii mbaar mi nekk tey mbaarum seng mi fi nekkoon ci ndimbalu sëriñ Abdourahim dem mu ndaw mi mu bàyyi maamoor jamono yooyu Cheikh Moustapha Karim mi moo ay jàngal mu bëgg am ñu mu xam xamlul ci gone yi ci wàllu njàngum alxuraan mi ku ci mel ni sëriñ Jili si ci la bokk sëñ Baye Maamoor dem ci la bokk Serigne Mor mi ay faat Amar ci la bokk Serigne Khadim Diop ci la bokk mu bàyyi ab kii Diop bàyyi Mbaye Diop ak ak sëñ Baye Malick rahmatullahi alayhi mu wàcc liggéey ci la bokk mu yaay sagar ak it euh, caatu euh, sëñ euh, doom yaay faat ñang sëñ Modou Baye Modou bi ma leen dajaleel fii ma war leen a am lu ma leen di xamal ci yaakaar ju yaakaar ni mën naa leen yor àllar bu ñu nekk day ñëw toog ci mbaar mi toog ci photo bi ma di leen jàngal ci kanamam nangu wuloon ma weeroog ñoom ba benn bis moom ba ma ñëw ni ma yow da am na ndénkaane bu ma jiitu nañ ma ci xaw ma nag wax ak yow ma ne tekk di ko déglu mu ne ma dama laaj lu mu ma ne ko loola lu mu sëñ bi mu ne ma damaa déggagul gone gu jooy ci sa kanam te it mel na li nga leen di jàngal ñu koy xam ma sigg ne ko dem yow de loo bëgg ma naa am mën naa am mu daa di reetaan ma ah, yow moom yàgg goo fi bari bëgg xam nu may def ba lu ma bëgg ma am ma ne ko waaw ndax ni ngay defal nit li ngay defal nit saa bu jéemee dara mënu ko rek bu yoba mu seeti la ne nu mu def ndax koo xamante ne doo xasita koo gis boo koy nuyu sax sa ñaari loxo yi nga koy jox ba mu defee ne da ngaa nangu ay loxoom yóbbaale kooku loo bëgg ci moom mën na ko def te gone yi de ko sëñ bi maa ko ci laay fas li may xam naa dana baax su ma amut ci ñoom ndam nag dootuma jaamu ne yàqal naa lii laa ko wax keroog ci mbaan mu reetaan jox ma miskin mi dong nga gis de tax ngay saalit waaye nag bu soobu yàlla doo yàqule loola nag li ñuy li ñu ciy dégge mooy doo yàqule gi mooy li sëñ bi wax léegi am na loo xamante ne kenn na aljana moom ku ko bëgg daa am borom tey da ngay jubóog moom door ci am na jot kon moom bokkul woon ci ñi doon digge aljana bokkul woon ci ñi eh, tàyyaloo nit loolu benn bis mos yor génn kayit ñu bind ci inxiraam ak in inxiraam mu ni ma bi looloo ci jublu ma ni ko dama koo for xam nga lu muy tekki ba tey ci mbaar mi ma ni ko déedéet mu ni ma lii mooy pas-pas bu tekkeeku yàlla bu mu jublu nag ci loon ci ci ci loo doon wut ci sa borom ni ma am na bu ko gën nag mooy inqiraat man ma kooku moom mooy pas-pas boo xamante ni dalay jokkaleeg sa borom ba dara du la yàqule yaa ñaari baat yooyu moom am naa ko ci moom ci lu dul bind mu jox ma lu benn bind bu ma faroon jox ko mu dima ko wax waaw waaye li li sëñ bi doon wax rek fii moom la ma ko waxoon fii rek ba mu nar ma cee génn kër gi dinaa ci jaaraat ndax danga toog ci mbedd mi man ak Abdou sëñ Abdou Khadir dem sëñ Abdou Aziz dem bu sookoon ak ñoom Mamadou ak Maxtaar dem ñoom ñu toog ci mbedd ma ne leen fii moom kuy ñëw ci daara ji te am faneen foo bëggoon a jaar wala foo war a jaarwaat faneen bu yemoon nga jëkki foofu door a mujj fi ndax fii moom fii moom ku fi jógee doo fi am foo mën a nekk ndekk sëñ baa ngi toog ci bi daal may woolu ma ñëw sëñ Saam moo ma daw woo ni sëñ ma ñëw ni ko dem ma yow de li ngay wax foogoon naa ni romb nga man de li ma yónni ceew de boo xamoon yooyu nga wax yooyu moom daana ma jaaxal lool ndax man daal ko ah dem wax man ma loo jublu ma ni ko ni ngay def nit koo pare ci moom fu mu dem xat mu ni sigéet fekk mi ngi yor ab doole ni ma ah ma ne ko yow koo pare ci moom fu mu dem xat moo tax ma ne ko fi bëgg ñëw te am feneen foo lim jëkke fa ndax foofa lañ la fa man a def boo ñëwee fii fàtte ko waaye boo jógee fii lañ lay defal dootoo ko teg bët feneen mu daal di may jox loxo ba ni ma lépp dana baax de ma ne ñokkee doon ko ginnaaw kon yooyu yëpp firnde ci li nga doon wax ni ci jàmmam ak bëgg jàmmam ak yaatalal léppam mat na yàlla na la yàlla gën a dëgëral yaag ñi nga ko bokkal yàlla na la yàlla gën a dëgëral dem sa la yaag ñi ngi ko bokkal yàlla na la yàlla gën a dëgëral dem ak yaag ñi ko bokkal ndax lii mooy wane ni li nga waxoon rek moo fi ne lépp jàmmam la woon waaye jàmm jam doon naar dara rëccu ci ndax bu ci a toog séeré lii waaw te keneen di taalibe noonu la mën a séeré doom noonu la mën a séeré ndax am na jëmm yoo xam ne boo leen jubaloon micro bi ñu daw ndax la ñu moom ñu wuñ ko wax kon nag sang bi jërëjëfati yàlla leen yàlla gën a dëgëral yàlla na leen yàlla gën a jàppale mbooleem naal nag wala nisar wala mébét bu mu amoon ci liggéeyal yàlla ci diine ak ci kër Sëriñ Tuubaa gi njaboot gi fi des mottali ko ba mu àgg fu mu bëggee woon dara bañ cee doog àdduna kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa